ñi ngi génnaat tey rek di wane sunu euh, naxar ndax dañoo nekk ci biir village artisanal bi di dund lu metti mu metti ñëpp ay xale ne fii di daan seen doole waroon mën a nekk ci réew mi di def di n'importe quoi mais defuñu ko xale yu góor yu ndaw yaa ngi fi xale yu jigéen yu ndaw yaa ngi fi sunu yaay ñëpp xamuñu lu dul village artisanal sunu ministre bi seetaan ñu directeur artisanal def na fi depuis jamonoy Abdou Diouf ba léegi treize ministres nañ ci ay loxoom mooy Matar Jaxate te musuñu fompal benn yoon sunu rangooñ kooku kooku ñun tey bëgg nañu ñun président euh, Mack nañu ko fi jëleel Matar Jaxate mooy sunu première naxar faalewul faalewul artisanal daar faalewul artisanal daar mi ngi ñuy tën xamlu génnoon fi fan yee passé mu dem fexe ba ministre waxuñu dara loo xamante ne li ñu mën a teg ci table ji la ñu jël ay waykat di leen jox Matar Jaxate na fi jógee ministre bi nañu ko changel parce que amalu artisanal daar njëriñ retraité na bu yàgg premier euh, ministre Matar Jaxate nañ ko fi jëlee directeur l'artisanal jamonoy Abdou Diouf jamonoy Abdou Diouf ba léegi mi yu ndaw yi jànguñu ne ci réew mi ñu war mën a jox artisanal ñu jiite ko Matar Jaxate Covid bi sonal nañu xale góor yaa ngi ni amaguñu ay xar ñi di sonn góor ñi amaguñu ay xar sonn nañu bi yoon nag ñun waxuñu sax ak ministre bi Macky Sall la ñuy waxal président de la République na gerte artisanal daar ñi ngi way ñi ngi may waykat yi di may fecckat yi bàyyi artisanal daar te artisanal daar day jàngale métier xale bu jàng école ñu daxala naa daar ngay ñëw ñu jàngal la métier nga di ci jariñu nekk nañu plus de 1600 personnes ci biir village artisanal bi te am na yeneen mbooloo yoo xamante ñu ngi bootu ci sunu ginnaaw benn artisan boo gis 15 personnes ñi ngi bootu ci ginnaawam ah ay père de famille ñoo fi nekk ñi ngi woo président Macky Sall na wax ci ñun ah ndax sonn nañu tàyyi nañu